du diplomate mais non non Maodo foofu na lay ree parce que. Mhm. yow nan ngay leelee alum nen di génne etu ko. comme watu wat kii di wat Pape Mante mi Pape Mante naa leel ba ci digg bopp mu ne da koy eti fort te boo xoolee Mamadou Fafa. mu ne xam ne daal leel ba. chimère su ma leelul Mamadou Fafa bi. yéen yéen xamoo leen leelu lan la xamoo leen leelu. mooy ñi mooy nga xam ne dañ koy ñuulal ba fii der bi la ñuy di <laughs> ko. léeg-léeg goo sax rapport bi nga toog. leel euh, xoolal ma leel bi. yow léeg bi nga rapport war na mën a génneel étu foofu. yow de. Mohamed Moustapha Mohamed Nabi. Nabi leelu yàlla ji dalaa étu ba pare. Nabi ah. Moustapha. iti foor naturel la amee baana. moo di Camara nee na ma Yacine du ma sa morom. <laughs> oh loolu dugal si loo xaj. <laughs> je crois naturel. mais lu borom xaalis mais gën a yokk ba laata ngay naa ko rapport bi nga topp moo tax <laughs> bu ne. ba tegu naa ba ne ci rapport bi baa jóg. kooku ma jëm ak yow. woon na na nga def. maa ngi lay ziar bu baax soxna Yacine. <laughs> Euh, di la nuyu maa ngi si jàmm bu baax. <clears throat> di nuyu le Fray le futur Fray. waaw di nuyu également Birahim Diadio Touré borom Etifor yi. mais dégg naa daa am rapport bu génn rapport u jëm ci Mimi Touré. kooku rapport ba il faut ma am. ah tey de loolu la ñu. ñu ah, bind si quotidien yi tey. rapport ba kay faaw mu génn moom rapport IGE ak rapportu. cour des comptes bu jëm ci maire yi nga xam ne ne makkoor nekk ceebu Macky Sall bi nañ ko moomalee yi ñu ne que ça compte pour du beurre. dañ ko daan waay. tey mu neex. Badou dañoo lekk ba diis moo tax ñu am na ay maire. macaroni ji. macaroni bu sóora jeeg ceebu Macky Sall bi nañ ne ñoom ñoo joxe. <laughs> moo tax ñu gañe leen kay. maire yi maire yi doon séddale Covid bi maire yi tamit ci lañ bokk. par kilo soble kilo pomme de terre hmm? ah. ceeb bi moom wax fa dëgg dem na nag. Covid bi de maire yi moom nañu génne seen rapport. di nga ci gis ñoom it ay giraawaali yoo xam na ne <laughs> ñu dëgër fit. rapport bi de. bon génne ay rapport mais et après en suite moom dina ci am. xam naa démb yëngal nga douzième kay euh, de bi de. ah Birahim et <laughs> après. basketball ah, douzième eh. gaynde baag yëpp a yëngu kay. démb douzième gaynde bi daay yëngoo yëngu na juróomi million. moom it foofu na. su ma yëngoon doo fi tudd juróomi million yooyu dégg naa de gaañaa ngay raayante te. dëkk ba yëngu na de. nee nañ fu juróomi millions yi jaar. léegi nag après tey li ñu wax nag tey fooy dem. alors am na ngay laaj bàkk ba pare. déedéet non garaawul mun naa dem directement parce que. waxuma la dara waaye wóolu giñ la wóolu bu ko Sumer Diop la tudd moo nekk ca machine ga le technicien au doigt de fait fii yaa fi ne. mooy tey El Hadj Birahim ministère de la santé et de l'action sociale nañuy dellu. ñoom jeexal guñu woon. déedéet foofu la fa nekk ca giraawaale. xam nga ñoom dafa am ay direction général ci ministère bi. nga jóge ci loolu district yi daal di ñëw district sanitaire yi. Mhm. maam district sanitaire yi. ku ca nekk ba Covid bi ñëwee. gaa ñi ñii dañoo ubbi ay compte bancaire yu bees amoon na ñoo xam ne ubbi woon nañ. ay compte bancaire yu bees. yu que jàpp nañ ni xaalis bi foofu la war a jaare ay loxo yu bees. ba Cour des comptes ñëwee gis na ne gaañ ba ñuy ubbi compte ya amuñu tu ndigalu ministère des finances. et du budget. pour denc xaalis bi oh, mais nag day am autorisation. parce que loolu xaalisu askan wi ngay denc. ok ba tey baax. gaaña ubbi nañu ay compte te yëgaluñ ko ministère ba moo taxit loolu nekk pratique boo xam ne ne jëfin boo xamante ne nii gis nañ ko. ci direction générale yu am yi nekk ci ministère de la santé mais tamit ci district sanitaire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox-goxaani hmm? loolu moom moo indi ba ca service maladie infectieuse et tropicale ak euh, unité bi nga xam te ne nii moo jëm ci wàllum ñuy saytoo parasites yeeg yooyu ci hôpital Aristide la Dantec hmm. mu jëm ci construction bi nga xam te ni centre de formation la agent yu nekk ci luy yëngu ci wàllum xeetu infection yooyu ñuy nemmeeku. di ko saytu loolu moom moo fa am te pratique boobu noonu moo ne de yoon da koy tere. day tere boobu waaw parce que amoo droit ñu dénk la xaalisu askan wi nga dem ubbi ci compte boo xam ne ne ministère ba mun yëgul tinul munul vérifier wala di xam mouvement ya nga xam ne moom mooy am ca biir compte ba parce que xaalisu askan wi tamit dañ koy saytu. dugg bee génn bi danañ ci war a lu leer. moo tax Cour des comptes woo ministère de la santé ne leen seen gaañi nañu def le tout ba daal di sàlloo ak li nga xam ne loolu la yoon digle ci lu jëm ci ouverture compte bancaire yi benn ñaareel ba mu ne it daage bi na nga def la tout ba xaalis bi nga xam ne yaa ngi ko doon jox ñi nga xam ne ñoom ñooy district sanitaire yi ñu koy jaarale ci compte bancaire yooyu ñuy ubbi nga arrêté ko parce que nag Abdou bëggul lu lëndëm. day leer. très bien. te police ma nga noonu. léegi gaa ñi ba ñu ubbee compte ya dañoo retiré xaalis ba jël di fay xobet xobet. aha lan leneen li nga xam ne yoon daal dina koy tere. bii moom jënduñu garab police moom. déet parce que feebar jaune bi lañ doon xeex. jël xaalisu Covid. Mm. dem jënd wax seen compte pays pëy moom bii moom du pëyis moom. déet donc jënd du pëyis waaye xobbet xobbet ga ñuy fayee ñoom it comme daas ba ma ngay fay xobbet xobbet ñoom it. loxo ci loxo. <laughs> hôpitaux yi ñu fay xobbet xobbet. loxo loxo bi daal la ñuy bañ. yoon da koy tere. bu tolloo fenn. bu fekkee ne montant bi dafa ëpp cent mille francs bien sûr. moo waral ca direction ressources humaines bu ministère de la santé ay dépenses def nañ ko fa joxe ko directement gaa ñi jël xaalis ba encaissé loolu moo indi trois millions cent mille yoo xam te ne nii fay nañ ko ci hôpital Aristide Le Dantec te moo ne na nañ ko fayee deux millions cent yi xobet xobet très benn cinq cent mille bi des bi pour mu mat 3 millions 100 xam nga lan lañ ko fayee carte bleue. da ngay dem rek rëdd. ah man de xaw ma ana faye carte bleue dem jox la carte rëdd pour nga mën a récupérer xaalis. daal dina gaaw. c'est-à-dire ah, xaalisu askan nga def ko ci carte bleue fay ko fa <laughs> mais tey sa bos. <laughs> waaw dama rek rëdd. damay nga yam fit. pratique boobu moom moo am ba ci district sanitaire yu baree bari xam nga bu tàmbalee ci euh, direction ressources humaines bu ministère de la santé bu ñëwee wàcc ba ci suuf ah mais yëf yi la mën a demee. loolu moo waral ca Kédougou jot nañ quinze millions doxalee noonu. Thiès district sanitaire bu Thiès jot nañ un million sept cent vingt neuf mille doxalee noonu. ca district sanitaire bu Thiadiaye jot nañ deux million ak lu teg ba ci district sanitaire bi nga xam ne moom mooy bu Nabil Souker bii nekk suñu wet jot nañ neuf million neuf cent cinquante cinq mille presque dix million yu manqué aswecc hmm. te moo ne de loolu dara du ci yoon moo taxit Cour des comptes nee na ministère action sociale responsable yi nga xam te ni ñoom ñoo nekk ci district sanitaire yi ak ci yenn direction centrale yi nañu arrêté di jël xaalis di ko fay xobet xobet mhm. xobet xobet gi moom mel nii ni tulleeg màlle tamit ci réew mi tamit lan la ci ñoo xamante ni xam nañ ne lii buur da koy tere nuyoowaale bi xam nga mbasi bi tamit lañ doon benn rassemblement moo tax ñu koy joxe noonu rek taf taf ah déet également mbay moom ah. banque yi xam nga day am rassemblement ci bunt yi. waaw léegi ñu ne xaaral ñu joxante ka rek nu waale ka rek waaw nga dëgg cas contact. joxante bi tamit nii cas contact la. Ah, waaw yow feebar bi day tere lool buur di tere xaalis bi ñu koy joxe noonu yéen ngeen di doxalee noonu. di ngeen wàllante feebar. <laughs> wàllante xaalis bi <laughs> moo gën a neex wàllante feebar. léegi nag maam. bu ñuy jotee xaalis dem jox ñenn ñu fay leen xobet xobet am na ñoo xam ne moom dañoo jot ba pare xaalis bi ne may dem yoonam moom. moo tax douzième gaynde. douzième gaynde mel na. démb de yëngal leen de. ba ca basket bi de dégg naa ca plateforme ba gars yi fooy waxante. baaba commencé defar seen slogan yàlla maam am na ci ñoo xamante ne nii di ay gestionnaire gaañu yëguñu leen tinuñu ay nit rek nañu jël teg leen fa te moo ne de waruñu sax nekk gestionnaire ñu ne deet na waay am na ci gestionnaire yoo xam ne dañoo jot xaalis ba ci boppam xaalis ba ne may loolu moom moo xew ca hôpital bi nga xam ne nii moom mooy niveau un bu Kaffrine laaj ma waa ji ñaata nañ ko jox. ñaata. ñeent fukki million ak juróom. 45 la jot. dañ ko njëkk a duut vingt millions ne ko téyel waaw après ñu duutaat ñu pare duutaat ko ñaar fukki millions ak juróom hôpitaux yi li ñuy gis xaalis tool noonu bariwul après maam waaja ba ñu pare waa cour des comptes de léegi sa waay tontom tontom lay déglu fu sëñ bi jàlloo noo doxalee xaalis ba waaja daal amul benn pièce justificative bu mu jox du dara nag du këyit du dara ba pare li ci gën a garaaw da caa mun sax tontu ah, ah, ku amul pièce justificative noonu ci tontoo nag loxo loxo <laughs> dama doon nuyoo rek non mais buñ la joxee xaalisu askan wi xanaa nag maam la xel nangu mooy mais nga am trasabilité kanaa koo jox mu def boo joxee maam. nee ko mais bindal ma décharge. xam nga sax même bu fekkee ne na yoon da koy tere. mais décharge sax nga am décharge ñu xam ne ne sax def nga effort pour leeral. parce que oui traçabilité la benn mais dans un souci aussi de transparence mais yow auto pièce justificative nga ñëw gaañu na la léegi. li nga dépensé li fan nga ko dugal. Mm. munoo tontu gaañi ci dara. ba pare munoo leen tegal dara lu leer. moo taxit Cour des comptes ne ouverture information judiciaire contre Seydou jàll moom nekkoon gestionnaire compte euh, euh, hôpital niveau 1 bu Kaffrine eh, Birahim hmm? léegi nag laaj gi mooy réew mii lu xew ba gars yi mbilim mbàcc ñu fayee espèce parce que tamit loolu problème la boo xoolee ñoom ñëpp rapport yu ñu fi jot jàllale yépp la ca ëpp ci ñoom la ñu fayee moom mooy xobet xobet et pourtant ñoom ñëpp xam nañ ne ne que ne loolu buur da koy tere. waaw ah, buur da koy tere te décret moo ko moo ko tere li tax ma dellu see ci décret boobu justement parce que euh, xam nga fan yëpp ñu ngi wax ci kii di ordonnateur des dépense kan moo war a yore dépense mbirum compte yooyu ci lu jëm ci budget état du Sénégal nga xam ni da ko pàcc pàcc la am lu mu dénk ñenn. ci ay structure am ministère bu nekk ñoo am lu ñu la nattal jox la ko hmm. dafa am lu ñu woowee <coughs> décret euh, deux mille vingt neuf cent soixante dix huit portant règlement général sur la comptabilité publique gis nga fii la ñuy wax chaque jour naan ni mun a wax ci wàllu kopparu covid bi di wax daaj yi ak secretaire général wala comptable wala lu mën a doon te boolewoo ci le ministre ci boppam wala le directeur d'une structure ou d'une société dañu ne ci biir boobu le décret ci page ci euh, li nga xam ni moom mooy euh, article euh, dix-neuf et suivant les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes engagent les dépenses et en ordonnent le paiement ñu indi la ne la kan mooy ordonnateur dépense publique ñu ne ministre ngi ci njiital institution mu ngi ci directeur u yenn structures yi ñu ngi ci maanaam ñooñu nga xam ne ñoom la ñu dénk ne ni tey décret bi mooy ni jël nañ Mamadou Fofana mooy ministre nangam moom mu ñëw ci biir cabinet mu ne diw mooy directrice wala directeur nangam ku ci nekk ci ñoom mu am ci wàllu koppar loo xam ne ni dañ la dañ lay nattal ci lu jëm ci benn xeex wala lu jëm ci benn liggéey lañ la nattal nag amoo sañ-sañu utiliser ko nu mu la neexee dafa am ay charte yoo koy utiliser yooyu lay chartes nag yooyu moo da cee ànd ak ñun di maanaam loo xam ne da ko tënk. Mhm. ci union économique et monétaire ouest africaine. Mhm. lépp benn objectif la ñu am mooy fexe ba lépp luy dépense ci budget wu état ci wàllu cop koppar comptabilité publique. Mhm. ñu fexe ba. luubal détourner facturation yooyu yëpp mën a ñàkk parce que lu ñu bëgg mooy parfaire li nga xam ne moom mooy administration wu xaalis ci réew yi ñu seq du UEMOA. ni ko yeneen réew di defee ni ko Sénégal. signé charte boobu ne ni moom it dafay dogu ci wàllu woowu. Mhm. moo waral dem boo xoolee même le premier ministre bi muy dalal euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy ay société civile ak yooyu muy fàttali ni loolu bokk na ci yenn yu ñu gis ci biir rapport bi am na ci lu ñu war a rectifier pour mën a fexe ba ñun ci nu ñuy téye finance ci réewum Sénégal ñu fexe ba mu doon li gën. Mm. mais loolee yëpp. décret moo ko génne loi moo ko génne euh, ci lu jëm ci wàllu suñu texte ci biir UEMOA tamit moo ko fësal ne ni amoo sañ-sañu def nu mu la neexee ci xaalis soo xamee ni mooy xaalisu askan wi nuñ ko mën a wooye loolu mooy jëfinuma tey bu ko defee kon maa fi jaaroon suba ñu dëkk nag ci beneen ministère boo xam ne ne la fa nekk ci giraawaale moom it ban la mooy seeni ministère yéen ñii toog fii xanaa communication ak culture ak culture baa ngi mooy ñi fii mu ne ko daal waaw duñu fi <laughs> fay ay mannequin ak ay kii gàncax. bon pendant ce temps di fàttali ni que Bougane Gueye Dany en tout cas le leader du mouvement euh, Gëm sa bopp tey dafa woote conférence publique donc suivi euh, justement euh, d'un débat à partir de 9h incha allah. ñi muy dalal bokk na ci Babacar Fall ay journalistes yu mag tel que Babacar Fall ak ñoom ay Aïssatou Diop Fall ñoom Pierre Édouard Faye euh, Serigne Saliou Gueye ak beneen Babacar bi ah. John Babacar John également donc tey à partir de 9h donc dinañ ko euh, teg en direct. Euh, sur Sen TV ak Zik FM tey jii incha allah bu soobee yàlla ci Neva ak différentes plateformes digitales moom la wootee. Euh, conférence euh, comment. Chimère mi ngi koy switché. Chimère mi ngi switché. moo koy switché waaw. Chimère Diop mooy switché émission bi incha allah. Chimère dafa kii waatal affiche bi waaye. pour le grand plaisir de Bougane. le président Bougane Gueye oui moom mooy animé débat bi. oui. ànd seex ñi ma gis nii. très bien conférence publique suivie de débat. waaw nañ ci bàyyi xel à partir de 9h di waaw fan la sax fu defee fii nii ci kër gi. kay plateau ba yànj na moom. defar nañ ko ba mu ba mu mucc ayib. Ah, très ah. bien. Hmm. boo toogee da ngay foog ne waaw très bien. kon ku nekk ku ko neex mën na ñëw si tànn si alors. jaf bi fort na ah. Hmm? waaw dina am jaf. yokk li muy yàgg. yow tey ku fi jaful ku ne. maa fi nee ma jaf ndax maa mbay mi gënu maa xees. tey ma jàpp ma ne ko man utub xaalis sama tax a lakk suñu mag di Jibi Gueye Ndiaye tey la anniversaire am. Jibi Gueye Ndiaye. waaw bu chef de cabinet président chef de protocole. bu Ousmane Sonko. Ousmane Sonko voilà bu baax a baax. wéeral moom di inconditionnel de la matinale. Mm. voilà mais baax na cette fois ci waa mag bu kaw la xam nga dama daan baaxoo di nuyu waa mag bu mbuur ñoom moo fekk mooy seen porte parole. Euh, mag bu Kaolack ñoom it fu mu nekk nii nee nañ faw ñu gëstu leen ndax ñi euh, sonn nañu euh, déjà nekk ci kaso rek dafa metti conditions yi bu xawee doy waar mi day day day metti ci ñoom alors bëgg nañ nag ñu ñu taxaw leen ka xam ne mooy directeur mag ba sàkku nañ ci moom mu gën leen a jàppale ndax fi mu nekk nii mm. metti na lool ci ñoom conditions yi ñuy nekkee yéeme na donc yenn information yi sax ñu ngi xam ne ne kon am na suñu nga xam ne dañ def dañu xiifal nii nii jamono ji waa am na am na am na yenn information yoo xam ne ñu ngi koy dégg ah. c'est bëgg nañ ñu ñu ñu gestu leen. te seen i dossier ñu àtte leen moo gën dossier di traîner foofu mooy longue détention préventive bi nga xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy jàmbat ci kaso yi donc ñoom ñu ngi koy jàmbat ndax nee nañ bañu bañu ñu ku leen àtte mais nañ leen jàppal dat ñu àtte leen moo gën ñu fàtte leen ci kaso bi loolu te bëgg nañ ñu taxaw leen ay te bëgg a yóbbu